Sidi Ndiaye El Hadj Sidi Ndiaye Mamadou Diaw Mamadou waaye fi événement bi toll bëri seen yaram tàng na bu sax yoon ñu koy dagg di jël yëkkati ay kàpp ndax bi dëgg mi toll. waykat bi toll foofu bay calculé sama nasaraan bi foofu mën nañoo continuer émotion bi muy dem ba fayal ndax na mën nañoo ñibbi waaye liñ gis jar na ko xam naa ni suba dañuy décrété mu nekk férié ci tout staff bu xuma compagnie ak siwal ñoom suba duñu liggéey un grand remerciement à mon frère monsieur Babou Loum kooku sama diggante ak moom junni ak cinq la di nuyu suma frère yi nga xam ne dañ c'est quelqu'un de multidimensionnel man dama koy am dama ko naan kii moom vraiment li nga dajale nii caaxaan mayewu nit ñi la wuy si aussi du ñàkk a xam fu ñuy jëm moo leen fi indi te mbër yi ma gis fooye wuñ seen carrière te kenn jaar ci ñoom di yàq làmb leen rek ñu leen di ñaanal ñu nekk seen cat mooy ñu am ay coach yu am ay promoteur yu la nangoo tëggal ndax mbër yi kenn ku si nekk démérité wuloo pour jël championnat bi ci nekk kon mbëri maa ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay ndax xam naa ne bala may dem dañ koy tënk foofu tuuti rek damay àbb benn paan ngeen may ma tuuti ku nekk ci sa biteel ma koy barkeeloo ndax ma mel ni yéen wala ma ton ni ñoom su ma amoon ni ma gënal dama koy wax ci séeréer bi yëpp di ko dégg waaye li ngeen di tëgg neex na ci xol li ngeen di woy neex na ci xol kon ñu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di remercier sama xarit yi ma si àndal muy siwal directeur général bi di El Hadji Mamadou Ndiégène directeur général bi di monsieur Alain ànd le directeur commercial de Hassan Fall ak directeur de commercial de Hassan Diop Et ànd ak ki nga quel kenn côté ingénieur en BTP Ibrahima Mbaye vraiment nous ngi remercier encore son excellence euh, madame le maire que suñu diggante ak moom yàgg na bi muy le ministère des mines moo ñu yore démb éventuellement am nañ. Mamadou Thiam Mamadou Thiam. échange yoo xamante ni. yaa Mohamed Ndong Mamadou Thiam yaa Mohamed Ndong. waaye Joal lañ tàmbalee yam ci Joal mu jox ma ci lu toll fukki projet dañu toll ak ñett ñu ñu waxtaane mu bokk ci mébétam yoo xam ci diir néew bala ay semaine bi ngeen ñu gis ñu commencé def yenn démonstration yi fii ci Joal bokk na ci entrée Joal bi. gare routière bi ñaari marché yi visé nañ ko stade arène de lutte bi dem nañ fa démb stade football bi dem nañ fa démb dégg na ci musée bi nga xam ne mi ngi bokk na ci ay initiative mu réalisé ko fii nii ci kon moom nekk na ci kenn ci yi kenn du jaar ci moom di yëpp son excellence président Macky Sall kon moom fii mu nekk ak ñi ko dar nekk si ay wetam dooleem mooy doole mooy jeunesse Joal mooy mooy mooy njabootu Joal mooy doole madame la maire kon ñu ngi leen koy gën di dégg te xam ne ko am vision de développement la vraiment kontaan nañ si pour ne pas vraiment euh, trop parler comme les gens disent euh, sama waay euh, mi ngi noonu Ibrahima donc de ne pas faire une conférence j'espère vous mettez dans un com. Oui, euh, bonjour, euh, bonsoir pardon à tout le monde. Je voudrais euh, vous remercier pour, votre invitation, surtout M. Kouma qui m'a invité, hein, voilà, à mes collaborateurs aussi, qui sont venus avec moi. Je voudrais remercier la délégation, Madame la maire, Madame la ministre, voilà, et tous les sportifs aussi, parce que notre, notre venue est pour les sportifs. Connaître la lutte, connaître votre culture, c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, et, pour notre travail aussi. Voilà, donc après, euh, je, vous félicite et puis euh, on va continuer de regarder. Et j'espère que l'année prochaine, on sera là pour deux jours parmi vous. Voilà, voilà c'est gentil, c'est sympa, merci à vous. Un grand remerciement.